ci def ab xayma li ko dalee ci wàllu ko téeméeri fanuk Bassirou Diomaye Faye jàpp wàllu ko justice ak ponk yu jàpp ba ca biir assemblée nationale moom waxtaan na lépp waaye daal fa mu gënoon teg baaraamam bokk na ci rek ci lu jëm ci mbiru ko Macky Aminata Touré nag soxna leen bu baax a baax mooy leen lenn jamono ji nga xam ne daal moom mu nga yëg ay kàddoom waxtaane na moom Macky Sall mi nga xam ne daal tabb nañ ko def ko envoyé spécial u 4P ji loole bëgg na dugal boppam ci lépp lu jëm ci mbirum Sénégal Aminata Touré teg ca rek ne assemblée nationale nag moom jamono ji daal nañu ko doon gisee démb ak taxawaay bi mu am tey ji wute na lool ba tax na rek jàpp ne dañu ko war a tas tasar la bu ci moom Sud Quotidien yi ne kay itam moom la xëy newaat fàng nañu nag Aminata Touré foo làmb rek daanaka xam na fa taal wa bu baax a baax boyal na fépp jàpp leen ni Aminata Touré ci cooloolee daal moom mel na daal mu ngi rafetlu bu baax a baax rek seen ak régime taxawaay bi nga xam ne am na ko waaye dëgg gi nga xam ne daal mu ngi wéy di ko leeral ci lépp loo xam ne ay sos la ñu daal di koy euh, teg fii ña ko def nag du ñeneen ñu dul ab opposition bi nga xam ne jàpp na daal ñoom ñoo xëy fu nekk daal ñu ngi fay wax jamono ji mu xam ne ni euh, sénégalais yi daal ñoom dañu leen rek daal di faxas ci woteeg présidentielle ba ndax na nag loole euh, nañu koy naqarloo moom mu war a rek fu nekk ñu xëy di fa wax mu mel ni Aminata ture nag fay na li nga xam ne daal moom moo nekk seen ak safara le regard yéen kaay itam ci coow lay daal la xëy tey ji nañu moom Aminata Touré daal moom mayu leen dara bu ñu ko gisee tey ji daal ngeen na ñamuy ndokkeel tey ji daal moom mooy ñuy xeexal démocratie ba tax na jamono ji réew mi daal di toll bokk na ci daal la muy waxtaane moom mooy ñi nga xam ne daal ñoom ne duppee ku jéggi jamono ji mënuñu rek wanaasu seen ak nakar ñëw nag jël bi nga xam ne daal kenn mësu ko gis ci làngu ko politique gi ñeel wàllug élection présidentielle la li quotidien yéeni kaay nag nañu protocole bu Cap Manuel xotti na ko xotteet ginnaaw nag jamono ji ah, li nga xam ne daal mënees nañu ko seetlu moom mooy nag ah, neexalante gi amoon diggante Macky Sonko ak Diomaye dafa mel ni daal ah, ndar képp nañu ko président ba daanaka dagg na prototype loole di la ko booloo nag ki Sall ci jamono ji nga xam ngay amal conférence de presse ba jamono ji Mimi Touré nekk nag koo xamante ni nam sóob na boppam ca biir pecc ma jàpp daal ni moom daal ma ngay duut baaraamu tuuma ki nga xam ne mooy Macky Sall nañu nag na muy doxalee daal dara baaxu ca Emmanuel Macron la mu koy wax daal moom mooy Macky Sall mënul nekk jamono ji euh, wéy di euh, liggéeyal ak moom waaye tamit des rek jamono ji euh, di jiital ab parti ci wàllu kujje gi ana rek lan moo na la nekk njeexitalu ko loi d'amnistie bokk na ci laaj ba nga xam ne tam samp nañu ko coow mënta ñàkk loolee critique yéen kay moom moo ñu koy xamal bokk na ci daal lu jëm ci wàllu ko gouvernance ak xiiro bi nga xam ne daal am na diggante pouvoir ak opposition bu ñu koy xayma jamono sax moom kenn dégg ko woon pat pataaral la woon waaye jamono yi dafa mel ni am na ñoo xam ne daal ci ñoom ñooñee ñu ngay tàmbalee jokk di kay kàddu gi rek ngaan ñi jamono ji régime bu wees bi waaye ñoom ñooñee daal bu ñu ko xaymaa xayma Aminata Touré am na taxawaay boo xam ne jot na leen ko jëlal ne ni démb ca pencum ndaw réew ma mu mel ni daal lu jëm ci wàllu ndaje mi président groupe parlementaire nar a sekk ngir rek uh, jubbanti loole di règlement intérieur ba dafa mel ni daal la ngi cay xaw a sotti ndox mu sedd coow la ca laxas woon yëpp dafa mel ni daal wàññeeku na Abdou Mbow Ayib Daffé du Lamine Thiam ñoom ñëpp amal nañu ab ndaje ci talaata gile la bëgg daal moom mooy jël lu ni mel uh, méngale ko wala bokk yemale ko ak loolu déclaration de politique ba ndax nag dañu jëm ci ab session extraordinaire bu Assemblée nationale ci fan yu laaj la bu ñu samp les échos yi ni kay itam xëy na fangal ko Fulbert Sambou ko Didier Badji bu ñu koy xayma ab càkkuteef la rek ñu amal audition Ismaïla Madior Fall ko loolee jot nañu ko déposé ci kaw tabalu ba magistrat instructeur bi nag ndax moom dana rek amal accès ci bile ka demande ga laaj la bu les échos samp tey ji ci xëtam mu njëkk laaj samp woon tam diggante le peuple yéenekaay ak Doudou Wade tey ji daal moom xëy na àddu ca di xam ne nag ne moom jamono ji daal euh, bañ rek euh, jox gëdd assemblée nationale boo ko mel ni daal ku leen di euh, neenal faalewu leen loole lu garaaw la bu ñu koy sukkandikoo rek cootu ko yëglekaay bi tamit bàyyi jamono ji daal Ousmane Sonko mu bëgg a def déclaration de politique générale feneen fu dul pencum ndaw ma tam loole mënee si ko dégg tax na daal moom Dudu Wade cootu yëglekaay bi la muy wax moom mooy Bassirou Diomaye Faye jamono ji daal moom juum na juum gu rëy sax bu ñu ko xayma la tribune yéen kaay moom descend ak ñun ci mbirug affectation ya ca magistrature bi tànneefu ko euh, góor ñooñu nag bokk na ci li nga xam ne daal jur nag pëccoxo jàpp leen ni euh, loolee jàpp préconseil moom ngir taxawal ko daal dana mën a tax ñu mën a wattu lépp loo xam moom moo jëm ci affectation magistrat yi le waaye tamit taxawal ab compétition ci wàllu ko poste bokk na ci daal pexe bi nga xam ne euh, moom moo gën ngir rek jóg ci lépp loo xam ne moom mooy mer ba bi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci pàcc bu ni mel université Cheikh Anta Diop bu Dakar la tribune de Sendek ñun daal di ñu ci xamal ne foofa ndongo ya yee nañ fitna daal na ngeen démb tëgg nañ casserole ya bu baax a baax na ko Ousmane Sonko santaane woon ci ay jamono jamono ji ñoom ubbi nañ nag baal bi ci kilifteefu ko Jomaay euh, bu ñu koy xayma daanaka daal la foo tourné daal a tàlli telli rek ngay daal di dégg bu ñu ko xayma étudiants yi ne daal la ñuy yéen naqarlu bu ñu sukkandikoo ci la tribune moom mooy ñàkkum ndox mi nga xam ne faral nañ di ko fa gis Pereira. Libération moom ñëwaat ak ñun ci coowal li nga xam ne moom moo am ca booru ko Argoub nekk ca Maroc ab centre d'accueil la boo xam ne daal ay migrants lay dalal waaye jamono ji jàpp jàppale nag ni euh, juróom fukk ak ñett ca migrants yooyu la daal ñoom fippu nañ bu baax a baax bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi jamono ji la ñuy xaar moom mooy nag ñu daal leen a rapatrier maanaam delloo si leen fii ci réew mi waaye nag euh, fanweeri fan ak ñett a ngi nii boobaak léegi forage daal ne xëddeen dara amu ca baabu Sène nekk nag consul général bu Sénégal ca booru ko laa nag nee na kenn ci ñoom ku ca jëlee gaañu gaañu daal moom sa seetlu ñoom yàq nañ fa nag yàq yu bëri ci boobu léegi centre la ñu war a xam daal moom mooy centre d'accueil du ab hôtel ba tax na daal war nañu mën a xam seen ak bopp yéenekaay bi daal teg ci ne amaana tam leneen lu ñu ca nemmeeku moom mooy am na gaal boo xam ne bàyyeekoo na ca Gàmbi def rek lu toll ci ñaar téeméer cay doomi aadama jàppale ni dañu ko wallu rek foofe ca euh, marine royale bu Maroc nag ak lu toll rek euh, euh, bitim réew Sénégal ñaar ci ñoom nag ay soxna lañ ñaar ci ñoom ay mineur lañ maanaam amaguñu fukki at ak juróom-ñett loolee ñu gis ko ca seen ak biir ci wet gi tam beneen ak gaal boo xam ne Sénégal la bàyyi ko moom ca El Hierro la daal di teer ca booru ko Espagne juróom-ñeent fukk ak ñeenti nag ci doomi aadama ñoom ñoo ci newoon ci seen ak biir gis nañ ci nag benn xale boo xam ne jigéen la ñaari at la daal di toll ah, kenn koo xam ne daal ñaar fukki at la ci wàllu góor ñi ñoom ñëpp mujjee nañu rek ñàkk seen bakkan ginnaaw bañ leen yëgale ah, ca loole di bërëbu fajukaay gendarmerie tam fexe tamit ba booru ko Mboro gaal ga fa bëggoon bàyyeekoo ñu daal di ko teg loxo ñu wax ci wàlluk tàggat yaram Ismaïla Sarr doomi pendanaar bile ëllëgam ci wàllug Marseille laaj samp na ca Ismaïla Sarr mi nga xam ne jamono ji entraîné ak groupe professionnel bu Marseille ginnaaw nag ba ñu ko tegee ci wet gi ñu ngi nag samp laaj ndax moom moome du toppi tànk Pape Alassane Gueye jóge ca Marseille nag xooli beneen club boo xam ne na fa football bokk na ci laaj ba ñu samp rawat na rek jamono ji nga xam ne Marseille daanaka mu ngay waaj a xaatim addu moom ma nga ca biir eh, Marseille Ismaïla Sarr ndax dafay dem wala déet laaj la bu record yéen kay daal di samp diggante euh, Tapha Tine Balla Gaye 2 la tribune yéen kaay moom moo ci xëyte ji di ca def ab jàngat jàppale nag ni ci dibéer gi lay doon ca booruk arène nationale ndax Tapha dafay fay wala boog Balla dafay làbbali laaj la boo xam ne la tribune yéen kaay samp na ko waaye dal li ca leer ba leer moom mooy jamono ji ñoom ñaar ñii seen ak dënn tàng na lool laata ñu amal bi nekk combat Aïcha lii mooy seen i kaay xew fësal tey solo mbokk yi di leen ñaanal ko ci kaw jàmm ak cant ak ngërëm ñeen na la yow tamit. ba cere bi gaañu la rek ci tamxarit ci cere laa juddu Aïcha. <laughs> fàtte naa ni séeréer cere la bëggee. maa ngi lay nga passé une très belle journée ba ëllëg incha allah. ngeen doog jàmm incha allah merci beaucoup ñu jaajëfal ko bu baax a baax moom Grégoire Samba Ngom euh, bu ko defee mbokk yi ngeen des ak ñun ñu wëyal.